aidons les enfants handicapés di mbooloo moo xam ne dañoo jukk ngir jàppale ñii di waay laago rawatina gone yi doon amal tey jii ci alxames ji yamook fanweeri fan ci weeru juillet 2020 bi bisub ndimbal jagleel ko waay laago yi ngir ñu am lu ñu dimbalikoo ci tabaski gi ñu dëjmal soxna na bu njaay jiite googule kuréel dellu si li tax ñu amal gi la ndimbal. ñu jug pour jàppale xale yi nga xamante ne ay handicap lañ. Eh, jox leen maanaam ndugg ak yooyu xalaat bi nag dama toog ak sama borom kër Cheikh Moustapha mu ne ma est-ce que duñu xalaat jàppale xale yi nga xamante ne ay handicap la eh, jéem a xool nan la ñuy def ba waxtaan ak ñi ci groupe bi ñu dimbali leen ci tabaski gi am nañ 48 personnes yoo xamante ne jàppale nañ leen waaw ah, jafe-jafe gi nag moom bëri na eh, xale yi am laago jafe-jafe seen jafe-jafe bëri na torop ndaxte ñu ci bëree bëri seen waajur yi doo seen doole day néew ah suñuy naan nag liñ bëgg bëri na ndaxte bëgg nañoo jàppale xale yi ñu mën a jàng jàng euh, ñi ci mën a def leneen ñu def leneen ndaxte jël xale handicap rek tëral ko ci kër euh, jaaduwul ci kaw mu mën a jàng mu mën a wax mën a def yëpp dinañ jéem a xool xale yi nga xamante ne mën nañ jàng ñu jéem a xool fan lañ leen di dugal ñu jàng xam dara incha allah. bonne volonté yi nag dama leen wax rek ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax jàppale xale yi te xam ne njaboot gi sunu njaboot la ñu jàpp ne rek. doom yi mu ngi mel ne doom joo jur rek kan niñ koy xalaatee chaque jour te liggéey bi dafa yemul Touba kese dafa wër ndax jàppale gi 48 euh, personnes yi du Touba kese dem nañ Dakar dem Kees dem Kébémer dem Sanci Mbour benn village bu nekk Kébémer noonu lañ doxalee liggéey xanaa gën a woo bon volonté rek ñu gën a góorgóorlu te xam ne xale handicapé yi am na ci ñu sonn lool euh, ñun waa Aidons les enfants naam euh, ñu ngi gëstu xale yi. waaye nag gisuñu ñëpp di ñaan nag euh, ñëpp jéem a xool xale yi fu nekk ñu wax ñu ko ñun ñu def ci suñu kéemtulaay kàttan ndaxte wax dëgg yàlla loolooy sunu yéene loolu mooy sunu yéene. Mouhamadou Moustapha Thiam njiite mboolem handicapé yi nekk ci dëkk bu sell bii di Touba di lu jëf jii bu baax. sunu objectif nag mooy woo képp koo xamante ni yaa ngi dund ci social ñu jàppale soxna Zeynab Ndiaye. Euh, ndax mi ngi liggéeyal yàlla mi ngi liggéeyal yàlla bu baax a baax suñu borom nag dogal na am na ay partenaires bitim réew am na ay partenaires fii si réew mi waaye booy dimbalee dans les 14 régions du Sénégal say partenaires warta doy ndax soxla yi bëri na te on est dans un pays sous-développé dana am solo ñu woo partenaires yëpp ñu ñëw jàpp si liggéey bi ba liggéey bi gën a jëm kanam tey nag dañ fi daje woon doon def benn don bu am solo boo xamante ni dañ ko dimbalee yaay yi yaayu handicapé yi ñoom leen ko jagleel ndax dañu gis ni yaayu handicapé yi am na si ñoo xamante ni dañu tàqalikook seen borom kër am na si ñoo xamante ni dañ leen a abandonné am na si koo xamante ni fii mi ngi si jataay bi bi doom ji juddoo mu nekk handicapé la ko jëkkër ji fase xam nga loolu c'est trop dangereux yooyu yëpp dañuy am cas yu grave am na si ñoo xam seen borom kër dafa génn àdduna donc yaay yooyu nag tey lañ jël jox leen ndawal jox leen 10 kilos de soble 5 kilos de pomme de terre vinaigre dëwliñ ak bépp ndugg boo xamante ni jigéen dana ko soxla ca marché ba ñu jox leen ko ñu dem yóbbu ko seen kër ngir mën a noppalu ngir mën a dalal seen bopp ngir xale yi aussi mën a bég ñun suñu première jafe-jafe ci Touba mooy boo xoolee wàllu autorité yi fii doxul bu baax euh, état bi ni mu war a fonctionner fii ci Touba ni mu war a doxe doxewu ko am nañu ay ay ay jafe-jafe yu rëy ci wàllum école ndax handicapé yi soxla nu jàng nasaraan soxla nañu jàng alquran mais booy xool sax dañ leen di fàtte dañ leen di fàtte parce que ay personnes handicapées lañu te ay xale lañu même état bi sax da leen di fàtte parce que boo xoolee tey ndax yaa ngi bàyyi xel état fu mu toogee ci télé bi rek wax xale handicapé yi dafa am lu am solo loo xam il faut ñu bàyyi ci xel dañu nekk benn dëkk boo xamante ni 95 pour cent de la population sénégalaise sont des musulmans te jullit dafa am lu mu war a tënku ci ñaari aaya yi rek laa koy yemale wala ñetti aaya muy si wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu suñu borom dafa wax nan mooy ci buumu yàlla bi ñu ñëpp te bu ñu teqalikoo suñu borom bëggul separation te kon ñun dañu war a booloo nekk benn waaye ci biir booloo boobu suñu borom dafa bind ku xees bind ku ñuul bind ku njool bind ku gàtt bind ku am bind ku ñàkk bind ku xam bind ku xamul ba pare nag ni innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum wa taqullaha laallakum turhamun yéen jullit ñi na ngeen xam ni ay mbokk ngeen kon na ngeen rafetal yéwénal seen diggante mbokk googu ça veut dire que boo dégloo aay bi da ngay gis ni ki ñàkk ak ki am am na benn relation bu war a am seen diggante relation boobu nag la ñuy woo képp koo xamante ni sunu boroom may na la doolay poos. ñoom handicapé yi nga xam ne ñoom lañ doon jox ndimbal yi ñoom itam feeñal nañ seen mbégte bu baax. rafet rafetlu ko lool te kontaan ci li ngeen ci li ngeen man nii ba def ko ren yàlla ngeen ko man dégg ndax kontaan nañ ci yi nga xam ne daa jóg fu jàppale sa doom ko amoo fayam kon yàlla ki am fayam rek lañ leen di bàyyi kon ñun de soxna Seyna bu amuñ fayam ndax ñun ñi nga xam ne ñoo jur xale yi handicapé yi sonn loolu suñuy doom kon buñ gisee ko ñu ci dimbale ko amuñ fayam soxna Seyna bu nag cant bi ci moom lu commencé waaye ci Moustapha Thiam la yem bu ma bo ndaxte buy man lii bu ko def ci Moustapha Thiam te olof jaay dafa wax ne doo lay ndox la di sant yàlla rek di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant képp képp ñëpp ñu daje rek di ñaan yàlla def ci jàmm daal te lu ñuy sóobu ne yàlla jëm kanam di ñaan soxna si ko suñu ba ak suñu ci kaw di ko ñaan mu yàgg ci loolu ànd ak wér li mu sant ni yàlla na jëm kanam te sant bu baax wax di sant yàlla ñëwee ma wax dëgg yàlla macha allah ndax di ñaan mu yàgg ci loolu jëm kanam rek ma am na solo daal waaw ndax moom moo ko waxee dama kontaan woo sama soxna wax ko hmm. léegi sama soxna tey def aaye moo tax ñëwul ko ma man maa ko teewal rek merci di ñaan jëm sa kanam rek yokk yi doon benn pàcc ci askan wi te ñuy soxla woon ndimbal ak saasu ne kuréel gii di aidons les enfants handicapés di sàkku ci defkatu lu baax yi ñu gën di bàyyi xel ci waylaago yi rawatina saa su xew-xew yu mel nii a jubsee